أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci sunu téere bi nuy tuddee sarxu du'a min alkitaabi wa sunna téere bi di tudd firi ñaan ñaan ngoo xam ne ñu ngi koy jële ci téere yàlla ak ci sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoo ngi àndoon ak yéen ci ñaan waxtu wiñ koy nangu ak bis buñ koy nangu ak barab buñ koy nangu ak baat yi nga xam ne ku ko wax boo ci ñaanee yàlla yàlla may la tey dinañ ci jël ñetti tomb tomb fukkeel ak ñeent tomb fukkeel ak juróom tomb fukkeel ak juróom benn bu ñëwee ci tomb fukkeel bi ak ñeent bëgg nañ doomu aadama buy ñaan inda du'a bu fekkee yaa ngi ci ñaan nga ñaane baat bii ñuy wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin fekkee ne ab jullit aajo woon a ñaan bay ñaan mu ñaane baat yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaan bi mooy daawatu zinnuun is daa wa huwa fii batni lxuuti mooy ñaanu yonent yàlla yunus ba mu ñaanoon ba ko jën bi wonnee mu nekk ca biiru jën ba mu naan amul benn buur bu ñu war a jaamu budul yow yow yàlla sell ñeel na la man mi dama bokk ci ñi tooñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku tàllal yàlla ay loxoom mu daal di ñaan ñaan bii mu ne fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi shay'in qattu illa istajaaba allahu lahu amul kenn kuy ñaan ñaan bii dib jullit moo xam da ngaa sujjóot moo xam da ngaa toog moo xam da ngaa taxaw moo xam da ngaa tëdd nga ñaan yàlla ñaan bii lu dul yàlla dana la nangul illaa istajaaba allahu la ki wax mooy yonent bi yonent bi nee na ñaan bii ku ko ñaane yàlla yàlla nangul la kon nag li fi des mooy dëgg-dëgg am kóolute ak wóolu ne man kat lii su ma ko waxee yàlla nangul ma ndax kat yonent bi moo ne ku ko ñaane yàlla may la waaw ku ko ñaane yàlla may la ku tol na yonent bi du waxantu du wax lu ko wóorul du wax lu ko leerul moom xam ngeen ne wa ma ataakumur rasul fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen ndax la muy indi ak la muy joxe ca yàlla la ko jëlee moom yonent moo ne képp ku ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin mu ne soo ñaanee yàlla may la fa innahu lam yadu biha rajulun muslim fi shay'in qattu te nag doo ko ñaane ci benn mbir su fekkoon ne sax dafa ne boo ko ñaanee ci sàngam yàlla may la waaye dafa ne bi shay'in ci lenn loo ko mën a ñaan boo ko ci dugalee boo ko ñaa boo ñaanee yàlla yàlla may la loolu boo bëggee tukki ñaanal yàlla ci ñaan bi boo bëggee alal ñaanal yàlla ci ñaan bi boo buggee wér ñaanal yàlla ci ñaan bi loo mënta bëgg ci sa àdduna ñaanal yàlla tàllal koy loxo nga ñaan ci ñaan bi yàlla dina la ko nangul ndax yonent bee ko wax lu waral loolu mooy ñaan gi daa ëpp daa ëmb ñeenti mbir bi ci njëkk li annaha jamaat min kamali tawhid baa di dafa matale kennal yàlla ndax yow yàlla nga ñaan yàlla rek nga wax tuddoo keneen ñaan bi daa wone ne yàllaay kenn moom yàlla moomu nga kennal mu leer na ne moo fi ne kenn newu fi kudul moom mu leer na ne mooy ki am mu leer ne mooy ki yor mbir yi lépp ci loxoom la nekk moom yàlla moom yàlla moomu nga ñaan reconnaître nga ne yàlla rek la ñaareel bi mooy al iqrar bi wahdaniyatillahi tabaraka wa taala da ngaa saxal kenn ku yàlla waaw al iqraaru saxal bi wahdaniyatillahi ci kenn ku yàlla tabaraka wa taala waaw léeg-léeg nga gis kuy ñaan di bokkaale bokkaale yàlla ak keneen bu neexee yàlla ak diw yàlla mar ma may ma ci barke diw yàlla ak diw kii nag daa kennal yàlla moo tax bi mu ñaanee yàlla yàlla may ko dafa wéetal yàlla dafa saxal nekkuk yàlla kennam ne moom yàlla moom kott moom kenn ñetteel mooy tanzihuhu ani zulmi lil kamaali li kamaali adlihi wa hikmati kii moom dafa setal yàlla ci tooñ ne yàlla du tooñ yàlla dafa maandu yàlla dafa xereñ xoola ki jën wann mu nekk ci biir géej mu naan sell ñeel na yàlla yàlla man mi maa tooñ sell ñeel na la yow yàlla man mi maa tooñ wax na dëgg dafa dafa wax li am ndax yàlla daka yónni ci ay nit mu dem di waar ñooñu di leen jubanti di leen jàngal diine ñooñu lànk mu tàllal yàlla ay loxo ne ko yàlla alagal ñii yàlla lànk mu gedd dugg gaal bi mu duggee gaal gi gaal gi bëgg a lab am boroom xam-xam ca biir gaal ba ne leen gaal gi dafa am ku tooñ boroomam ku fi nekk ñu teg ay bant bant ba dal ci kawam ñu daal di koy jël tëmbal ko ci biir géej gi benn jën bu rëy daal di koy wan mu nekk ci biir géej gi nekk ci biir jën bi nekk ci lëndëmu ndox meeg lëndëmu butit bi ak lëndëmu biiru jën bi mu naan yow yàlla sell ñeel na la yow yàlla man mi maa tooñ wax na dëgg kon dafa xam ne moo tooñ mu nangu ne moo tooñ mu reconnaître ne moo tooñ mu yëg na yàlla ku maandu la ku xereñ la mu tuub ci yàlla mu reconnaître ay bakkaaram yàlla daal di koy jéggal ñeenteel mooy kamalul adabi fi su'ali nit buy ñaan dafa war a am teggin tey boo demoon kër nit di ko ñaan dafa laaj li ngay sol dafa laaj na ngay duggee dafa laaj noo koy nuyoo dafa laaj nooy tooge dafay laaj nooy waxeek moom pour mu danga koy ñaan pour mu may la kon rawatina nag sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon yàlla subhaanahu wa taala boo koy ñaan dafa war a am ay teggin waaw kii ñaan na ba pare pour yàlla baal ko waaye ci biir ñaan gi kenn déggul mu naan yàlla baal ma te pourtant ñaan na ci biir ci biir ñaan gi kenn déggul mu naan yàlla may ma xam nga biir ñaan gi yëpp soo déggee laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin ñaanul yàlla dara waaye ku dégg baat bi ci biir mooy di nga yëg ne ab ñaan la waaye xoola teggin la teggin gu mu wax jëme ko ci boroomam mooy yow yàlla yaa sell man mi maay ki tooñ comme nag maa tooñ ki ne maa tooñ ki toog ci kanamu sangam ne ko maa tooñ am na lu mu bëgg mooy li mu bëgg mooy ko baal moo tax teggin gi teggin waaw ñaan dafa am teggin boobu mooy fukkeel ak ñeent fukkeel ak juróom du aa unnaas aqaba wafaatil mayit bëgg nañ ku faatu waxtu bi mu faatoo suñ ñaanee nit ñi bu ñu ñaanee yàlla yàlla dana jéggal ki faatu waaw nit ñi bu ñu déggee nit faatu na ñu ñaanal ko nit kooku nit ñi ñaanal kooku faatu nit ñi ñaanal yàlla day nangu ñaan bi loolu xadisu ummu salama la qaalat daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala abi salama wa qad suqa basaruhu fa agmadahu summa qaala inna arruuxa ida qubida tabicahu albasaru fa dajja annaas min ahlihi fa qaala la taddu ala anfusikum illa bi xayrin fa inna almalaikata yuminuuna ala ma taquluun summa qaala allahuma agfir li abi salama warfac darajata fi lmahdiyin واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم افسح له في قبره ونور له فيه umu salama nee na yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa dégg abi salama faatu na bët yi buqeeku na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw daal di wàcce bët yi mu ne gis ngeen de ndeysaan nit de bu faatoo bët mi dañuy aju ndax bët gi day topp ruu gi di ko xool nee na su boobaa nit ñi danañ yuuxu waa këram nit bu faatoo ba bët yi buqeeku bët yi topp ruugi nit ñi bu ñu gisee façon boobu nit ñi danañ yuuxu mu ne waaye maa ngi leen di wax bu leen wax lu dul yiw laa taddu ala anfusikum illa bi xayrin bu leen wax lu dul yiw way sama ndeyoo way sama baay way torox naa way alkunaa way fu ma jëm yooyu waxu bokkaale la ak waxu reewande way foo jëm foo jóge woon woy torox na ku la doon dundal moom weddi nga yàlla laa taddu ala anfusikum illa bi xayrin su ngeen gisee loolu bu leen wax lu dul yiw bu leen ñaan lu dul jàmm ndax kat fa innal malaayika yuminuuna ala ma taqulun malaayika yaa ngi fi te lu ngeen wax rek ñoom dañ koy dégg woy ñun torox nañu kon da ngeen di torox woy ñun fuñ jëm woy ñun alku nanu woy ku ñuy yoraati woy woy woy ah malaayika yi de dañuy gëm loolu ngeen di wax su maqaala yonent bi ne allahumma axfir li abi salama yow yàlla borom bi yaa yor njéggal jéggalal abi salama mi yëkkatil darajaam te nit ñu baax ña yow yàlla yal na nga ko wuutal lu baax ginnaawam yow yàlla yal na nga ñu jéggal jéggal abi salama yow yàlla yaay borom mbindee fi yow yàlla yal na nga ko yaatalal ci bàmmeelam yow yàlla yal na nga leeral bàmmeel bi kon boo déggee nit faatu na mu ngi ci biir kër gi génneeguñ ko kër gi wala mu ngi ci jàkka ja sangaguñ ko wala ñu ngi koy waaj a ñu ngi koy sang wala ñu ngi koy waaj a jullee soo déggee faatu na ñaanal ko ñaan bi allahumma ixfir yow yàlla jéggalal nga wax turam soo waxee turam nga wax war fa darajata fil mahdiyin wax lufu fi aqibihi fil ghabirin waxfir lana wa lahu ya rabbal alamin allahumma ifsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fihi lii nag balaa ñu koy rob ngay ñaan ñaan gi mooy mu ngi ci biir kër gi ñu ngi koy waaj a génne wala mooy mu ngi ci morgue bi ñu ngi koy waaj a sang wala ñu ngi koy sang wala ñu ngi koy waaj a jullee nga ñaanal ko ñaan bi fekk robaguñ ko ñaan bi foofu lañ koy jàngee. fukkeel ak juróom benn ci anam yi ñuy nangoo ñaan mooy addu'a baada sana alallahi wa salaati ala nabi bëgg nañ boola ngay ñaan nga tagg yàlla soo taggee yàlla ba pare nga bàkk ko kañ ko nga julli ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam wa huwa mawtinun azim min mawatin al ijaba ci barab yu màgg la barab yu rëy la ci barab yi ñuy nangoo ñaan faqad kaana nabi sallallahu alayhi wasallam yad'u wa yasta'iz fihi min al umuri al muhimma al idam fa an abi hurayra radiyallahu ma salla nabiyullahi arba'an aw isnayn illa sami'tuhu yad'u allahumma inni a'udhu bika min azab al qabr wa min azab min azab an nar wa min azab al qabr wa min fitnati as sadri wa su'i al mahya wal mamat mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam musta julli julli goo xam ne maa salla nabiyullahi arbaan aw isnayn yonente musta julli ñaar raak wala ñeenti raak loolu dégg naa ko mu naan yow yàlla maa ngi muslu ci yow ci mbugalum safara maa ngi muslu ci yow ci bàmmeel maa ngi muslu ci yow ci fitnaay dënn maa ngi fit muslu ci yow ci fitnaay dund ak fitnaay dee lii ab julit war na koy ñaan fu mu mun a toll pour yàlla musal ko ci mbugalum safara pour yàlla musal ko ci mbëglu bàmmeel ci yàlla musal ko ci fitnaay xol bu xat dënn bu xat yàlla musal ko ci fitnaay dund ak fitnaay dee li ay barab la yoo xam ne nit bu ci ñaanee yàlla wala ay baat la yoo xam ne nit bu ci ñaanee yàlla yàlla may ko bi ci njëkk mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ñaareel bi mooy allahumma ighfir li abi salama ku faatu nga tudd turam ñaanal ko ak saa yoo jullee ginnaaw julli yi juróom nga tagg yàlla bàkk ko kañ ko màggal ko soo paree bala ngay ñaan nga julli ci yonent bi soo paree nga ñaan rawatina nag ñeenti mbir yi nga ñaan yàlla yàlla musal la ci allahuma inni audu bika min azabi nnar wa min azabi alqabri wa min fitnati sadri wa su'i almahya walmamat noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu nangul ñu sunuy jaamu yàlla nangul ñu sunuy ñaan barkeel ñu ko incha allah mbokk yi li moo doon darsa tey noo ngi jéggalu njuumte yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu